bureau CNG ñu seet ci ki nga xam ne aussi mooy son président Bira ñu war a jëm Diourbel le 6 le 7 le 8 mais bi ñu jëm muy drapeau chef de l'État boobu nag boo leen ko déggee xam ngeen ne kon ren ji mooy ñaareelu ayam euh, daaw mu defee woon ko dëkkam ren tamit aussi mu ñëwaat euh, njaareem mais balaa ñëw dugg rek euh, président ginnaaw bi ñu la nuyoo ñu waxtaanee ci coupe yi nga xam ne aussi fekk nañ ko fii sa bureau yi façon yan façon coupe la Bira boo nuyoo ba pare. jërëjëf Pape Thiam maa ngi lay nuyu euh, di la sant di nuyu Africa 7 euh, TV yëpp nuyu mbokk yi li ñu seetaan euh, di nuyu également axlu lamb nuyu sénégalais yëpp di leen wax juma mubarak yàlla na nangu suñu koor jégal suñuy bàkkaar trophée yi ngay gis nii trophée équipe nationale de lutte la yii ñu ngi ko gagné CEDEAO francophonie yii championnat d'Afrique yi eh, yeneen tournois yi bon du lii rek am na yu nekk ci magasin ba aussi waaw ci magasin am na ay trophées fa nekk mm-hmm. eh, donc lii daal équipe nationale moo gagné c'est les trophées mm-hmm. indi mm-hmm. xam nga làmb ji bokk na ci ñi nga xam ne aussi dañuy ay ay ay ay ay ay ay ay trophées fii hein donc yi mooy nga xam ne vraiment euh, gagné nañ ko benn récemment moo nekkoon CEDEAO pass biñ biñ defee woon fii euh, à Dakar uh-huh. donc boobu noonu yeneen yi nekk yeneen édition yi. Mm-hmm. Mm-hmm. alors bii bu 2008 la bu mag bi. Mm-hmm. tolak tolak tolak donc euh, bëri nañ daal en tout cas ngi noonu bu ñu génnee léegi daal dañuy indi ay ay trophées yu ñaaxeel dégg nga. rëq-rëq du ñàkk ci organisation en vérité euh, loolu euh, organisation bi ñu am ay yenn détails te lu mu ne sax du rëq-rëq parce que xëy na incompréhension amoon nag ci benn pàcc ci mbirum logement. mais si sinon les yëpp vraiment c'était très bien xam nga perfection maanaam mët amul fenn lépp mët amul fenn yàlla rek a mët moo am di mëti tamit mais organisation boo gis dina benn imperfection bu ndaw loolu nag ñun jàngat nañ ko beneen jël nañ ay disposition yoo xam ne euh, kii yore commission boobu wax nañu moom jox ko ay directives pour vraiment mu teg ko foofu parce que xam nga su fekkee ne bëgg naa dem rek dal di ñëw yooyu dafa war a jeex ñi ci bokk nañuy ñëw ñi ci bokkul toog seen place et puis ñi ko ñu war liggéey liggéey bi def ko loolu lañ jàpp ren moo tax ba yéen surtout télévision yi def làmb soxla nañ leen foofu trop ak sites yi def aussi làmb parce que ñoom ñoo ñi nga xam suñu activité ñoom ñoo koy gën di véhiculer ñoo ci gën liggéey kon nag ñun rek ñoom ñoo bokk liggéey loolu moo tax ba ren incha allah euh, la nga concert bi di ko tuddaat ni daanu fexe mu soriñu ndaxte defoon nañ ay Euh, ba régler euh, question yooyu noonu waaw. voilà bu ñu jógee nag ci loolu ñu demaat ci beneen question boo xam ne aussi dafay intéressant bon peut-être euh, ci wàllu équipe yi bon peut-être nan ngeen di def ba sélectionner quatorze kii yëpp te daaw nag manqué woon na benn benn benn raison ren est-ce que yaakaar ngeen ne quatorze raison yëpp tamit aussi dinañ di ngeen ko matale. daaw manqué woon raison de raison ñëwoon nañ. manqué woon na benn treize la woon. non quatorze raisons. quatorze régions la woon quatre poules waaw deux poules de quatre ak deux poule de trois ren quatorze régions yëpp def nañ seen présélection pare nañu yoon nañ seen liste mais ñun xam nañ sele ñuy sélectionné yëpp xam nañ ko donc incha allahu les quatorze régions seront présentes danañ nekk dañ teew fële ni la à Diourbel alors am na région xam ne ñu ngi ay dellukaay foofu parce que dañoo xaw a réformer tuuti xam nga bu njëkk dañoo jël CNG moo doon jël euh, di héberger région yi di lu utal ay kër wala ay hôtel mm-hmm. mais ren dañ ne région bi dañ ko jox subvention mu utal boppam fu ko neex parce que xam nga léeg-léeg nga utal nit fenn mun la fi gëraluma wala fii dafa suri wala fii day su ma amoon fenn yooyu yooyu yëpp pour débat boobu ñu clore ko ñu tëj ko dañu yëkk benn enveloppe bi jox région bi ne demal ci région ci région boobu ba nga dem ut foo dal loolu mooy gën a yomb noppal ñëpp comme ça imperfection yi ngay wax dootu kenn du kenn indi ci ñun nekkul sax un transfert de responsabilité bu ñuy def mais quand même euh, gis nañ ni moo gën waaw moo gën ci làmb lañ nekk xam nañ réalité làmb la alors euh, ñoom accepté nañ ko nee loolu moo leen gënal te xam naa ne fii rek semaine prochaine ku nekk nañ yónnee benn enveloppe bu fekkee ne lépp yemb na. lii tubaab wax rek il faut toujours aller vers la communication il faut aller vers l' information da ngay nit ki da ngay li la soxal da nga koy jëli te lay wax nañ ko. journaux yi bind nañ ko rajo yi wax nañ ko te am nga sa téléphone CNG ku fi oote ñu uyu la CRG yi ku leen woo ñu uyu leen kañ ngeen def seen sélection ñun la tel date nga ne man de bëgg naa ñëw ñun la aywa et c'est ouvert bi ñuy waaj sélection yi man mii oote yëkkat naa sama téléphone am naa journal bi moo woo bind na ko pour waree ne sélection yi tel jour lay commencé jeex tel jour kon nag fekkee ne allé yoon fekkee ne bëgg ngaa dem de wootal dama dama bëgg a dem si région bu la soxla ni la kaay wala book yow boo yëgee ne région Dakar day def par exemple wala région Kaolack wala Thiès wala Diourbel boo toogee bés bu jotee nga xëy dem toog stade ba xaar nit ñi bu ñëwee nga bindu bu ñu la sélectionné muy sa chance bu ñu la sélectionné nga xam ne effectivement du sa chance mais quand même euh, wax nañ ko te région yi woote nañu ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen donc loolu mu amul vraiment débat nit ñi daal yëg nañ ko ñi mu soxaloon xëy na yëg nañ ko ba dem nañu vraiment def seen présélection léegi am na ay changement ay changement la waaw premier premier bi waaw premier mooy d'abord te xam nga dañoo wax ne limite de pois cent vingt lay yem léegi loolu amatul dañ ko vraiment euh, aligné ci lutte contre la africaine boobu on a des cent et plus cent et plus mun a dem ba cent cinquante cent trente cent quarante donc ren ubbi nañu ubbi nañu ba ñooñu mbër yu mag yooyu am na chance duñu wàññi parce que pois bi ñu indi moom la ñuy accepté na nekk plus de cent rek. loolu benn la beneen ba defoon nañ ko daaw naam mooy eh, dañuy dem jedi pour délégation yi teel a ñëw ñu def seen tirage poule xam seen adversaire def seen visite médicale noppaleku le lendemain ñu doog a commencé beneen mooy xam nga open moom la ñu drapeau soldat open mooy ça dañuy jaxas ñëpp quoi lu ko dalee quatre vingt kilos jëm kaw ci ñoo ñooñu dañu la boole ñu bëre ku ko gagné yaa jël drapeau soldat après ñu réformer woon ne loolu benn di ko jël nañ ko par équipe mais gis nañu nit ñi demandé nañ pour ñu delloo si open bi delloo si nañ ko mais du drapeau soldat bi nag c'est compétition ci biir drapeau bi dañu open bi ci deuxième jour bi nit ñi bëri ko maanaam ku am 86 kilos ku am 100 kilos ku am plus de 100 kilos mun ñoom mun ngeen a bëree euh, en mille 2007 bi ko ab Ablaye Thiam di jël ci ko Abbas mooy Forza boobu Ablaye Thiam 83 kilos la woon moo nekkoon léger bu Kaolack bi donc mais dafa bindu woon daan ba jël jël ko ak Kaolack pour en tout cas 120 ou 100 120 ou 118 alors donc waaye donc loolu moo tax ñu ne nit ñi nag amateur laajte ko Sénégal laajte ko ñu ne boobu nañ ko dugal ci biir terewul drapeau sur table bi day nekk par équipe moo tax ma ne dina serré trop dina serré mais il faut que ñu gérer timing boobu ba toutes les compétitions mën a am donc loolu. indi am na benn influence mu indi ci mbir mi mu nekk ne yokk na enveloppe bi daa ñu ngi woon ci ay à peu près soixante millions te ñu ngi ci soixante dix sept millions six cent soixante comme budget budget boobu bi CNG war a am ah, boobu la ñu soxla pour def drapeau sur le table bi waaw loolu nag loolu quand même bon parce que boo dugalee benn catégorie dafa dafay am benn mise am loo xam ne moom ngay jox bëri yi donc la dugg foofu moom moo tax ensuite nit ñi war a ñëw aussi dañoo yokk donc su yokkee hébergement bi day yokk restauration bi day yokk transport day yokk te loolu yëpp CNG moo ko moo ko gàlloo donc reste récompense boo ko seetloo c'est après ay trente millions loolu boo ko xoolaatee da xam ne effectivement budget bu consistant bu am bu am solo waaw. li équipe yi di séddoo boo ko xayma après trente millions lay doon trente millions trente deux millions yoo xam ne dañ koy jox maanaam ba pare drapeau bi rek moom rek boobu déjà ki ko gagné dix am ko. ka ñàkk da nga am cinq millions déjà quinze millions financé quinze millions nga indi troisième place ak deuxième place ñooñu si dañu enveloppe après nga dem ci individuel yi ku nekk premier bi am na cinq cent mille deuxième bi trois cent cinquante mille troisième bi cent cinquante mille ñoom ñëpp soixante six kilos soixante seize kilos quatre vingt six kilos cent et plus de cent nga ñëw open bi aussi ya a une mise am na au moins cinq millions yoo xam ne teg nañ ko foofu te finaliste bi day am dara donc troisième aussi bu fekkee ne calcul nañ ko suñ ko mënee jox dara ñu jox ko dara donc lu loolu vraiment euh, c'est de l'argent boobu nag maintenant loolu boo ko jëlee nga teg ko à côté nga dem ci hébergement ba loolu beneen enveloppe la restauration ba beneen enveloppe transport ba beneen enveloppe parce que loolu yëpp CNG moo ko jël en charge te aussi moom mooy euh, transporter héberger nourrir toutes les délégations ren nag comme wax naa ko sànq euh, région yi dañu jox ku nekk sa enveloppe mu uti foo dëkk donc loolu xaalis boobu nag CNG moo ko war a moo ko war a génne mu nekk effectivement euh, le budget global boo génnee ci la ñuy jënd ci ay t-shirt ay invitation ay drapeau ak yeneen yi nga xam ne war na dem ci kii bi ay sunu fay woykat tëggkat yi ah ak euh, cérémonie yi ambiance waram ci stade bi c'est c'est c'est beaucoup de choses yoo xam dañ koy def ci benn paquet ne lii mooy organisation drapeau chef de l'État te nag bi mooy vingt deuxième édition ñaar fukkee fukkeeli ak ñaari édition bu ñu tëgg drapeau chef de l'État mu nekk compétition bi gën a rëy bi gën a màgg ci làmb ci Sénégal moo tax jour boobu su jotee amul kenn koo xam ne dañ ko may autorisation nga tëgg làmb ci Sénégal ñëpp dañu war a focaliser wu ci émission ci euh, édition bi ci programme boobu ñii mën a seeraan seeraan ko ñi ko mënul seeraan ko ci télévision yi parce que loolu aussi mooy yoon mën nañ di tëgg transitaire ñii di tëgg fële wala kenn hmm. loolu quand même bon jël nañ yi te nañ ko gën a wisaare également incha allah. Hmm. Euh, amul fay euh, gratuite la ñëw rek dugg. mais oui justement amul fay c' pour le chef de l' état seen je ko dëjee la population sénégalaise sénégalais ñoo ko moom fu waaye toll war na ko mën a seetaan. Hmm. boo mun ne taal sa oto wala nga jël sa moto wala sa saret ñëw si war nga am dara saa yoo da ngay dugg doo fay dara. wala nga toog sa kër seetaan ko ci télévision yi noonu la ñuy ñun concept boobu la am ci Dira Sultan ne dañ ko suñu agenda national donc war nañ ko tëgg chaque année bu ko tëggee tamit Sénégal yi nga xam ne intéressé na leen dañ ko war a seetaan saa ñu saa ñu fay dërëm donc noonu mooy Dira Sultan mën nuyu di sant monsieur le ministre des sports Matar Ba keroog demoon nañ CRD à à Diourbel mooy talaata bi passé euh, wax na lu rafet ci waa Diourbel seen wàllu cosaan seen wàllu caada ak seen engagement ci li nga xam ne mooy sport et surtout lépp dañu ko duppee président de la république wax na la aussi que ne waa Njaareem war ngeen a jóg jàppale CNG ndaxte wax dëgg yàlla am nañ biir jox ne war nañ ko boucler naam ñoom état bi na ci def dara mais quand même population yi war nañu dugal seen loxo seen population yi maanaam ñi dëkk bu Njaareem cosaanoo fa war nañu ko def ni waa war nañoo jàppale CNG. le ministre pour vraiment lancer un appel un cri un appel n'est-ce pas aux responsables n'est-ce pas de Diourbel pour que daañu seet nu ñu jàppale CNG bi. loolu vraiment moo tax ñun aussi comme dañoo am budget ne ñu ut nuñ ko li il faut que waa njaaram jàpp ci. il faut ñu yëg ci mbir mi daal. parce que comme ku aye war sa oo merci war sa moome donc ñoo ñu aye nag loolu daal moo ci nekk en tout cas mais yaakaar naa ni ma leen gisee que du ñu rëccu ñun lañ fa demee. waaw am naa yaakaar daal xëy na nañ ñëw vraiment jàpp ci. autorité que jàpp ñoo ciy jàpp xam nga CRD bi gouverneur moom moo ko moo oon pop nit ñi. Hmm. on a élu yi on a yenn opération économique ñu ñëw am na ay décisions yu fa jël léegi ñu ngi xaar pour ñu set effectivement ndax respecté nañu ko respecté wuñ ko mais gëm naa wala yaakaar naa boog ne daañu respecté disposition décisions yi ñu fa jël am naa ci yaakaar. Hmm. am nañ ay doomu jur wax ne aussi bind nañ leen lettre wax leen ni eh, lii la ñuy waaj te bëgg nañ ngeen jàpp ci. léegi nag ñu toog déglu parce que loolu mooy loolu loolu rek lañ lañ mën def hmm. waaw. yaakaar naa loolu am na solo mais xam naa nag euh, pour ñu bañ a kii yaakaar naa lañu war a wax ci lit simple bi nag moom yaakaar naa war na collecter mais en tout cas euh, sa diggante ak la presse. koo xam ne ni aussi tey comme ñun Africa 7 nga xam ne rajo na yow am na rajo am télévision am site internet ñooñu tey nan ngeen di doxaleek ñoom euh, ci demaay bi ak dëkkandoo beeg lépp. comme ni ñu ko defee woon daaw dañu ne ñun am nañ privilège bi ñu jox presse mooy d'abord ñi nga xam ne làmb la ñuy def ñooñu leen privilégié d'abord ensuite maintenant les autres euh, daañu leen jëlal oto car wala bus bu leen mën a indi ba njaariñ ut nañ fu ñu leen dalal déjà mm-hmm. loolu amul problème maintenant bu ñu aussi avant ñoo dañu ay accréditation pour que bu ñëwee seen lépp mun na yomb ñu def seen liggéey loolu en tout cas suñu diggante ak presse bi euh, ñun dañoo def euh, presse bi ay partenaire moo tax bi lu bëri dañ koy jox ki nga xam ne moom lañ ko jegale muy euh, suñu grand Babacar Noël Ndoye moo nekk suñu diggante ak yéen comme ça mu jox leen accréditation yi et puis yéen na organiser pour ngeen mun a ñëw fële à Diourbel donc loolu daal ci presse bi wàllu wala pour gën a parce que bëgg nañ quand même ñiy làmb yëpp liggéey ci parce que c'est ça qui normal hmm? loolu aussi ñu ñu leen di ñaan aussi ngeen jàpp ci gën cee liggéey bu baax a baax hein relayer information yi et puis ngeen euh, fexe nu couvrir maintenant na am télévision boo nag moom dana ko def en direct boobu mooy la télévision partenaire bi nga xam la ñu jël euh, ci durant les trois jours là ñoom nañ ko def vraiment di ko filmer di koy wasaare allah. xam nga li ñuy dagg ngay yi ak licence yëpp ñuy jaay xam nga. yow ñëw nga fi fekk nga fi ay kayit yu tegee ak yeneen ak yeneen bureau yu nekk fii tamit am na ay ay ay kayit ay appareil ñu nga fa yooyu mais loolu dañ koy jënd donc ça dafa am dañu am fonctionnement oto yi ñu yor dafa am carburant di ci fonctionner loolu yëpp xaalis la drapeau sur équipe nationale ak euh, suñu yeneen programme yi def yëpp mais loolu xaalis moo koy gere te dañu jël suñu compte wala suñu euh, voilà suñu caisse di ci liggéey keroog fii arène nationale bi yow xool nga chaise yi dam meloon mu njëkk génn nañ suñu kees ay koppar daal defar arène nationale defaraat ko defaraat chaise yi loolu c'est que structure buy fonctionner dafa ay dépense yu muy def damay entraîner def ay dépense te liñ dagg mbër yi li ngay cool li muy bëri yëpp foog naa fi ñaari gaal lañ dagg loo xam ne ni ñu mën a dagg nañ mbër yi am na mbër yoo dagg nañ sa dellu sa xaalis ki ñuy yàqoon chaise bi waaw ñaar lañ téye woon sa ñaar lañ mujj téye seen xaalis ñaar dong mais yi des yëpp dañu delloo seen xaalis parce que am na yoo xam ne jaru ko ay ay la tout ça. de pare daal di ñëw génne suñu dugal suñu loxo suñ kees génne xaalis daal di koy fay euh, nit ñi ñu defar ñu ñu defar chaise ak yeneen ay mission dañuy dem ay mission par exemple ñaata lañ demagum Diourbel donc trois ou quatre fois mais essence ngay lakk c'est des missions yoo xam ne war nañ ko génne ci kii bi ñun bu ñu amoon xaalis boo xam waaw bu ñu laaj kenn benn dërëm mais li ñu yor motul waaw te nag xam nga booy demee lu lu tëggal drapeau chef de l'État baaxoon nañu saa bu ñu koy tëgg ñu jox ab subvention te loolu xam naa ne moom daaw joxoon nañu vraiment kontaanoon lool. te naa ne aussi noonu lay demee maanaam subvention dana am ci kàttu yàlla incha allah parce que monsieur le ministre sport wax na ko nit ñi dañ leen jàppale pour que ñu mun a réussir lii mais nag euh, ñi nga xam ne ñooy doomi gox bi war nañ ci jàpp ñoom tamit loolu leer na. donc loolu mooy mbir mi mais xam nga wax waxi waxi làmb ay xaalis bi xaalis bi xaalis fekk dagg nañu dagg fekk lañu dagg fekk du dara ñaar ñaar daal ñoom la ñuy xam mën nañu xam ne dagg nañ leen. dagg ngeen am seen 3 millions moom. waaw waaw nañ ko ñun nekkuñ ci pour sanction bu ñu sañoon duñ sanctionné benn mbër duñu dagg benn mbër. fii recevoir naa fi les jeunes lutteurs ñu ne way ñoom day xamuñu woon loolu yëpp man leen demee ngeen mobiliser wu ngeen gis seen biir. ngeen jàpp bu leen neex bu ngeen nekkee sax mille nga wala deux mille on vous reçoit moo technicien yi ñu ñu expliquer leen li ñuy bañ yëpp ñu wax leen ko bokk lii la ñuy bañ li ñuy bañ bu ko defee dootuñu dagg kenn kenn dox ne xaw ma ko mais ba léegi ma leen bu ma gisul nag naa def pexe boo xam ne daañu fexe ba ñu toog ñu xam li ñuy tere ak li ñu dul tere bu ko defee yéen presse bi nag ngeen wax ne ah lii kat waxoon nañ ko waxoon nañ ko ku ñu daggati du am fenn fu ko jooyee parce que da ngeen xam ne lii wax nañ leen ko bañ xam ko bu leen règlement baa ngi nii bul ko joggi nga ñëw nga naa ko joggi tey ko mais non et puis il faut que ñu ñu ñu raisonnable lan mooy raisonnable mooy que ne dañu règlement baa ngi nii lii lay bañ nga dem ka lay ngemb na la wala sëriñ bi ne la dafa lii nga xam ne règlement dafa lii de nga tànn la sëriñ ba wax xam nga liberté boobu waaye bu bañ règlement bi dal sa kaw nag choix la yow def nga loolu gaañi nga victoire jaral na la ko mais nag bu ko defee bu la règlement dalee sa kaw nga ne waaw victoire bi jaral na ma ko rek noppi toog sa ruq noppi bañ a nekk di wax ak gauche à droite parce que wax na ne carrément lii dañ koy tere combat bu mujj bii wax naa ko lii dañ koy tere mais ñoom ñu dem def la nga xam ne xëy ne loolu la ñu tegtal kon nag affaire bi ñaari option la xam nga mënuloo jël mburu mi jël xaalis njëgu mburu mi da nga mburu mi joxe njëg mburu mi am déet waaw mi mun a jël ñaar ñi léegi nag yow opte nga ne man su ndam jaral na ma jaar fii ñu sanctionné ma bu jaral la ko boo daaree nga dem ñibbi te noppi suñu la waxee dagg nañ la nga ne waaw parce que man ndam li moom a gën a loolu est ce que yaa ngi comprendre fi may waxee donc loolu mooy affaire bi règlement bi ñoom ñëpp ko xam wala boog seen manage yi xam nañ ko li ñuy tere xam nañ ko mais nag boo ñëwee règlement ne fi mu ngi mel tey may suma oto rek foo bi tàkk rek man ni man ni birit dem damaa yàkkamti ngir sama soxla mais su ma demee am na yu ñu ci accident yi mun naa ko provoqué am déet boobu su bi jàppee wala saa ne mën a bi fii waru foon a jaar kat nangam nangam contrat fayal amana forfaitaire ko ah mais man waruma kaas dama war a fay sama soxla laa doon topp ba ba burle fa du dëgg ndax waruma ko burle loolu rek la amul leneen règlement daal lii la boo ko jalgatee ñu ne lii moo la ciy fekk bu ko defee rek nga kii am na xam nga mbër yu bëri bëri nañ bi bàyyi bëri wala ñu ngi bëri kenn mu leen mm-hmm. am na mbër ñu ngi bëri ba léegi kenn mosu leen sanctionné bon mun na nekk mais fàttaliwu ma quand même franchement na yoon bëri nañu mais mosu leen a tagg mosu leen sanctionné parce que bu ñu leen lii la tere nga def ko wax dëgg yàlla loolu ah mel ne ab tooñ la tooñ nga règlement bi mm-hmm. ku tooñ règlement nag règlement dal sa kaw. bon lutte avec frappe bi ñu ngi koy saytu ñu ngi ciy waxtaan. parce que am na ñoo xam ne laaj nañ ko ñu bëri ñoo ne est-ce que duñ va duñ ci vaar ci lutte avec frappe bi xam nga boo seetloo lutte avec frappe bi loolu combat la bokkul ak tournoi tournoi bu ñu la daanee léegi defoo recours gars yi continué perte nga déjà mais boo defee recours léegi ñu xool ko léegi léegi ne la wax nga dëgg wala waxoo dëgg bu ko defee nga bokkat ci tournoi wala nga toog mais bëri dóor xam nga déjà bu ngeen bëree am nga temps ñu ne ma am nga 24 heures ou 48 nga def recours. nga ji am temps ñibbi sa kër sa sangu toog jàkkaarloo sa télé di xool si du xool ko analyser ko benn waa non man daanuwuma ñu la bind indi sa kaset kas bu la neex na nga indi foo gisee ne fii sa jël fi nga daal dafa leer nañ nga indi ko boo indee ñu xool ko bu ñu ko xoolee jox la ndam jox dëgg fekkee yaa yaa am dëgg donc xam nga loolu moo nekk te ma gis naa ne sax loolu ab avantage la mais bu ñu xoolee nag bi gis ne effectivement mën nañu di en direct fi ñu ñëwee nii ñu bëri ñu def ñu vaar ko c'est très possible bon ñun ñu ko xool mais bu ñu demee suñu conclusion après nañ dañuy wax wax ak presse wala léegi lii lañu gis wala li ñu appliqué ci saison bi ñëw. structure foofu nu mu tëddee euh, CNG am na ay carte yoo xam ne su ko defee ñu ko rek lamb bu mu dem Sénégal dafay dugg c'est une obligation obligation la fu mu dem dafay dugg alors xam nga mu ngi mel ni mu ne. promoteur bi tëgg làmb mbokk promoteur yi ñëw ak kartam mun ne ko doo dugg suma làmb mais bu ëllëgee bu demee làmb moo dugg xam nga loolu donc ñooñu am na ñoo xam ne mënuñ waruñ ñu waruñ fay dañu war a ñëw dugg manager bi indi na mbërëm mbërëm yi bëree dafa war a dugg présenté kartam dafay dugg maintenant ñeneen ñi nag dañuy paas am na ci sport bu ne nag am na ñoo xam ne duñ paas parce que am nañ carte wala am nañ statut bu tax duñu paas waaw loolu la xam nga bu fekkee ne da nga bu ñëwee dafay pass CNG ne la balaa ngay dugg suma bureau si da ngay fay xam nga loolu du ñu ci génn donc CNG parce que CNG bu duggul làmb am CNG bu duggul ci làmb làmb du am parce que moom mooy indi arbi arbitre yi indi indi superviseurs yi ah ak ak yeneen leneen CNG moo koy moo indi parce que xam nga man mënuma la abal dara pare nga nga ne du ko laal sa micro bi soo ko soo ma ko abaloon su ma ko téye bu la neexee nga ne jox ma sama micro promoteur bi CNG def ko délégué yaa ngi dégg def ko jox ca la lam moom mu jox ko pour benn affaire maanaam pour mu tëgg làmbam est-ce que ko délégué ma ay ay ay ay pouvoir entre guillemets pour que mu tëgg làmb donc dañ ko transféré ay yenn compétence pour mu tëgg làmb làmb bu jeexee jeex na làmb bu jeexee jeex na ki lay jox nag dara ca la nga moo ko moom kooku bu ñëwee dana dégg xool ndax est-ce que mu ngi jaar wala jaar yoon mu ngi xool nag lay jàppale pour mu réussir mu ngi xool nag lay jàppale pour mu baax kooku mënuñu nga doo dugg boo ko doo dugg mu ne ah waa xaaral ma dem suma kër mu toog te bu toogee doo tëgg làmb làmb amul su amul euh, superviseur amul arbitre hein amul organisation nooy tëggee doo di loolu rek la mais quand même bon nañ jàpp rek ne ñun ñëpp ay xarit lañ ay collaborateur lañu war nañu mun di baag bokk di ànd ci lépp parce que damay ay gala fii léeg-léeg ma gis solidarité ci promoteurs yi benn pro day tëgg nga yeneen pro ñëw di ko jàppale ci organisation ba parce que nit ki mënoo nekk fépp mënoo xam lépp te mënoo mun lépp am na ñoo la dàq lii ñoo la gën a euh, xam lii et cetera dañ ciy dugal seen loxo loolu nañ ko encouragé mais bu ñu découragé loolu mm-hmm. waaw léegi boo tëggee sa làmb aussi nit ñi ñëw nañ ñu nga da nga bëggee woon mais sa xarit ak sa sa mbokk yi ak sa xarit am démb yi yaatalal ñu mbokk ci affaire bi rek parce que ñooy am loo mun mën nañ ko indi daal droit yi muy fay xam nga mosoo gis promoteur ne man dama maa ngi fay arbitre yi wala maa ngi fay commission médicale wala problème maa ngi fay waa commission d'organisation wala maa ngi fay superviseur xam nga mul loolu droit yooyu du droit bu CNG rek def sam toog droit yu CNG dafay fay ñi acteurs yi ñëw ci làmb yi moo daf di fay benn promoteur mosul fay ay ay arbitre ak yooyu CNG moo koy fay mooy fay arbitre bi mooy fay organisateur yi mooy fay commission médicale mooy fay les superviseurs seen mooy fay ñëpp droit yooyu dañ leen di fay bu leen bàyyi woon ne dem na ngeen dem fay nit ñi la ñuy fes ci droit dana ko ëpp mm-hmm. mais CNG ci droit dañu droit yi bu ñëwee mu def ko ay enveloppe séddale ko séddale ko séddale ko séddale ko saa tëggee la mar di nga gars yi ñëw ñëw jël seen enveloppe dem loolu loolu la il faut que nit comprendre ne CNG nekk fi pour laaj ay xaalis yoo da koy dugal ci benn caisse wala ci benn compte rek daal di croiser les non affaire bi c'est normé et c'est bien organisé loolu aussi il faut ñu xam loolu donc euh, droit yooyu yoon la te waaj tey nag droit yi léegi sax bon voilà quoi loo xam ne mooy noonu <laughs> Pape euh, il faut que ñu comprendre xam ne droit yi nekkul lu lu lu faramine lu ngan ngan ngan lu bëri bëri non non bëriwul noonu. mais en tout cas moom bëri na ci ñoom. ñoom bëri ci ñoom. waaw bëri na ci ñoom xam nga léeg wax naa ne mbër mun nañu fekk fi cinquante mille. xam nga dafa am droit dañ ko échelonné dañu ne bu fekkee ne ci dërëm la départ ba dem cinq cent mille nangam ngay joxe droit bu jógee cinq cent mille dem un million nangam ngay joxe droit un million bi deux millions nangam deux millions bi quatre millions extra nangam ngay joxe ay droit loolee droit yooyu xam nga léeg mu nekk la c'est du dara parce que soo joxee ay droit quoi cent quatre vingt cinq trois cent quatre nga bu ko jox arbitre yi bu ko jox euh, commission médicale jox ko organisateurs yi jox ko superviseurs yi CNG lu mu ci am dara day jeex c'est ci croiser les ci koo xam ne yaa moom mbir mi ah mais ñun dañ ko yuuxu dañuy noppi rek comme ñoo ilif ñëpp boot ñëpp bu ñu yuuxoo ñañ ilif nu ñuy def daan nu jooy wala nañ daw moo tax ñu di ko muñ di seet naka lañ koy euh, gérer dëgg fii kenn mosu fee déclaré li mu fay mbër yi kenn mosul déclaré li mu fay mbër yi ba mm-hmm. ba CNG nekkee CNG. ba léegi 94 ba léegi. Mm-hmm. amul benn combat bu ñu fay muy cinquante millions amul mm-hmm. amul sa quarante cinq millions. ne bi quarante amul ay vingt millions gën a bëri trente cinq million wàcc. galaay bëri yi fii yëpp ay combat un million la cinq cent mille deux millions jeex na. jeex na tàkk tàkk tàkk tàkk coolee bari waaye amul benn yoon boo xam ne nee lii lañ feen bëri mu nekk loolu exactement non non non ñun nag la ñuy def ci biti ñun vraiment mënuñ ko gérer mais li ñëw fi moom daañ ko teg ci yoon te daañ ko gérer. ma ñëwee léegi moom képp koo xam ne bëgg nga kaa def sax ma yëg ko oo naa la mm-hmm. oo naa la wax sama wax service yi ne loolu war bu mu am nga ñëw régulariser doo ko am da ngay aveu naa la ne la autorisé nañ la nga def lii nii nga koy defee ak nii ak laa mbër mi nangam lay àndal war na am alkaati war nga ci salle fermée temps ñoo war a dugg jeex jox la ko boo ko wàccee am na lu règlement prévoir dañ gaa boo deful lii règlement bi lii la wax nga signé ko ñu signé ko ñun am sa kayit nga dem te kayit boobu soo ko amul aussi police du ñëw naa dafay dem dafa si daf koy daf koy couvrir donc loolu vraiment yooyu yooyu génn ci wax dëgg yàlla dem def nii sa face à face te kii yoo régulariser wu ko par exemple ñu amu avenant fii non loolu mënatul nekk non non non fi mu ne moom loolu dañu koy tere dafa am yoo xam ne da ngeen koy indi ci làmb ji wala di ko commandé te jaru ko euh, xam nga làmb culture la sport la caada la bu nit ñi indee ñoom dañu bëgg a reeloo nit ñi ngir ñu bëgg yàqu ci làmb ji dara ñooñu li ñu def loolu du bëri li ñu def noonu du bëri ay exhibition la rek c'est des guignols ñëw foo ree dem c'est pas méchant su nekkoon dañoo ñëw pour dóorandi ay courbe leen mais dañuy am licence ñëw ak certificat d'aptitude mais dañoo ñëw pour foo ñëw diwu raayoo fii gis keroog ñëw nañ fecc nañu ni ñu ree di ñu tàccu ay kilifa sax yu nekk ci kaw ba ñu seen face à face ñu ngi ci doon wax di leen encourager tout ça non loolu dara yàgg nañ fii moo moo eh, notre frère Koutia je l'encourage très bien il est tout tout bon mais amu fi woon combat. mosu fee mosul ñëw bëri fii. moo ah. moo galo ana où problème. mais yàqul dara dafa defar rek. ah Kouthia champion la. ah Galo aussi champion la. mais ñoo ne dafa li ñu man nit ñi kontaan nañ ci rey nañ ci ba te ñu koy <laughs> fàttaliku donc là bu ñu bu ñu bu ñu génnee. Ah, ah man ah xaw ma ku ñu daanoon en tout cas Kouthia champion la. voilà bu ma boolee Kouthia fi ne daal li ma xam mooy ñooñu xorom la ci làmb yi. en tout cas euh, yàgg na fi te ñun aussi gis nañ ne du luy yàq yàqul dara keroog cinq combats rek ñoo amoon cinq combats nit ñi paas nañ ñëw nañu en masse loolu dugal nañ combat Guignol c'est pas grave bés bu ñu xamee dafa grave dañ koy dañ koy dindi teg fële parce que xam nañ ni wax nañ leen amul dóor amul dóor amul dara kii leen nit xam nga te loolu lañ def mm-hmm. ñibbi loolu amul problème amul problème te ñoo am nañ seen xeex non amuñu licence amuñu licence parce que bëri wuñu duñ mbër mbër mi am licence mbër da ngay jógee sa kër dem ut certificat médical hmm. certificat bu la permettre bu daan c'est d'aptitude à la pratique sportive noonu lañ ko tuddee boo ko amee nga ñëw fii ak sa photocopie carte d'identité ak les droits afférents nga ñëw nga dépose ñu defal la licence hmm. loolu la mais ñooñu amuñu licence mais nag mun nañu exhibition rek mu ngi mel ni benn benn benn fecc katin mm-hmm. ñu tëgg affaire bi neex mu wàcc rek fecc dem ñu ne amee ah, ki mu ngi bàkku te amul licence c'est pas non grawul c'est pas li nga xam ne grawul nañ bàyyi ñenn ñam parce que ñoo ils vivent de leur art mm-hmm. am na ci la ñuy dund buñ ne art bi mun naa ko indi ci làmb ji mu neexal làmb ji mm-hmm. ñu fay ma dara dañuy may occasion boobu opportunité boobu loolu rek foofu noonu lañ ñun mais nekkul ne ne ay mbër lañu yooyu bu ñu doon naroon taral affaire wala ñu indi ay yàq-yàq duñ leen duñ leen admettre ñu dugg duñ dugg foofu CNG fii amul salaire salaire amu fi xam nga lu ñuy wax bénévolat mouvement associatif yëpp bénévolat la mouvement associatif bénévolat moo ci nekk même ci yenn fédération yeeg yooyu amul ku ne man sama salaire a ngi nii chaque le trente ñu jox ma lii sama salaire déedéet non non non c'est le bénévolat bénévolat boobu nag moo nekk CNG moo nekk partout waaw loolu foog nit ñi xam ko man kenn fee ma ñaar dërëm fii aw fi salaire. awma salaire yaa ngi dégg waaye li mu war a liggéey dañ ma ko jox yaa ngi dégg jumtukaay yi dañ koy joxe bu ñu waree dem léegi mission daañu def ci oto yi carburant def ci chauffeur boo waree fanaan ñu def comme ni ñu leen defal rek rek jox leen loo fanaanoo ak loo lekk loolu moo fi nekk amul leneen waaw loolu la am na solo <laughs> dañoo seetlu de drap solta région bi day ñoo bëri ñu gañe ñenn ñi ne ñoo moom xaalis ba ñeneen noonu noonu lii dafa ndaw ak yooyu yooyu léegi am na psychologue bu ñu génnee pour wax leen xaalis bu naka lay demee mm-hmm. région bu gagneeti dix million xam nga li ñuy wax délégation mm-hmm. délégation régional bi dafa am ay mbër mm-hmm. maanaam des athlètes am encadrement technique am encadrement administratif am encadrement médical ñooñee ñooy délégation officielle bi comme équipe nationale buy tukki rek c'est xam nga barke démb dégg nga bi ñu gagné coupe d'Afrique bi joxe nañ ay prime am déet du jour rek am de ñëpp am ñëpp am délégation officielle bi ñu ca bokk dañoo dañoo am fi circulaire bu nag dama koy defar yàgg naa ko di défendre d'ailleurs bu ñu dematee dix millions yi nga xam ne sa ko jël daal moo ko gañee daañu ñeen wax ne mbër yi ñoo moom temps pour cent bi euh, délégation bi moom tant pour cent bi maanaam ñi ànd ak mbër yi officiellement xam nga dix la ñu nekk ñoom cinq mbër ak cinq encadreur cinq mbër ñoo moom nangam pour cent bi cinq encadreur ñoo moom nangam pour cent bi loolu mooy dem texte bi ñu génnee ci à part équipe ba open ba ak euh, individuel bi yëpp na muy demee yëpp nañ ko xaaral ki nga xam ne nit ñi buñ ñëwee du ñu amati benn problème ci lii la wala nee la wala du nii mm-hmm. mais daanu fexe nag ba mbër ëpp la ci daañu fexe ba mbër yi ëpp la ci. mais un pourcentage raisonnable boo xam ne vraiment ña ca dem parce que mënoo ci jongante tëj sa kër bàyyi sa soxna bàyyi say doom foofu yëpp dem def fa la ñeenti fan ñeenti wala ñeenti guddi dara am fa te amuloo jënd lay say sa waa kër ab ab ab ab comment sëriñ loolu vraiment rafetul sax ci xel. waaw donc moom la bëgg a dindi ba bëgg a dindi ba nga xam ne nit ñi daa daañu sawar ñëw encadré mbëri mu daañu sawar bëre. moo tax ñu ne euh, mbëri ñoo ci ëppale incha allah mais surtout bu ma ko defee après naa leen ko jox. appel mooy rek ñu mobiliser wu mu mobiliser wu euh, dem Diourbel dem Njaarim comme ni ko waxee ci cosaan mobiliser wu pour jëmal drapeau du chef mobiliser wu pour dem fêter euh, cette journée de lutte ndax des journées làmb la enfin des journées laa ko wax mais en fait trois jours de lutte la ak yeneen yoo xam ne danañ ci dañ ko ci jéem a boole. pour agrémenter et également occuper tout le monde ci mbirum làmb ci période boobu ah, di ñaan aussi euh, mbokki njaare mi ñoom ñu jàpp ci population bi jàpp ci les élu ah ñi nga xam ne aussi dañ leen nommé ci ay postes de responsabilité aussi ñu jàpp ci pour jëmal seen région parce solo jëmal seen région mooy jàpp ci bi nga xam ne duñ ne lii moo sooxe fi wala lii moo manqué loolu nag dafa am solo ñaari pàcc lay doon jàppale seen CRG seen région foofu ñoom mais jàppale CNG même comité national bi nga xam ne moom mooy organiser drapeau du chef de l'état bi di ñaan presse aussi ñu ñëw ñoom ñëpp vraiment liggéey ci ci weeru koor lañ nekk mais bëggoon nañu aussi ngeen di ci liggéey def promotion bi ñi ko déggul dégg ko ñu ko war a dégg aussi dégg ko xam ne ñetti fan la alors euh, CNG dina dem avant ah te aussi euh, dina fa toog pour gérer situation bi bi nga xam ne vraiment jàmm rek euh, moo fay am incha allah rabi loolu daal laa mënoon wax di wax euh, les sélections régionales ñoom it ñu ku nekk préparé xam naa ren moom dana neex parce que euh, ñi ma gis ñu sélection ci région yi ay naataango yu am solo lañu te xam naa daal yàlla rek xam kan mooy jël drapeau sultan bi ren mais xam naa dana métti daal dana métti lool lool lool donc ma gërëm ñëpp sant ñëpp alors mu nekk nag buñ wooree ba pare rek ci mois de mai bi le 6 le 7 ak le 8 mai ñetti fan yooyu ci la ñuy koy def équipe équipe régionale dañu ñëw le 5 déjà la veille ñëw peese wu def seen vidéo musicale def seen tirage pour pare jongante à partir du 6. donc loolu daal la ñuy woo nit ñi nañ ñëw daal à partir du 5 wala du 6 ñëw seetaan drapeau du Sholta à Diourbel au stade Ely Manel Fall. président Bira Sène lañ si woon comme ni ma leen ko waxee woon naa ah, ñu war a dem fële ci Njaareem le 6 le 7 le 8. incha allah rabi Africa 7 TV dina fa teew Africa 7 rajo aussi dina fa teew ci 90 point 7 yéen ñu doon seetaan émission ngemm naa kon man Pape Thiam ak Ibrahima suma caméraman bi cant ak ngërëm ñeel na leen bu baax a baax